assalaamualeykum mbokk internet yi ñu ngi leen siar bu baax di leen wax ngeen dal ji amu sudee sport deux kuy gan ci page bi liñ ngeen ñaan mooy nga abonné nga activé eh, cloche bi gars yi bu leen ngeen di fàttee ba li ñu bëggee ci liggéey bi li ngeen mën def mooy di like c' est très important mook lay sila lañ koy tàmbalee jàpp leen bu baax moom mi nga xam ne voilà lah, wóolu ñu ko ci kan avec waa Sili National ndax Thiow bi dox sa digganteem ak kenn mooy Kaba Diawara jàpp leen nag moom ci ginnaaw gi jël na nee li nga mooy retraite am avec waa Sili National nee na dafay concentré wu ak Afrique du Sud ginnaaw bi ñu fasale seen liste ñu wóolu ñaar fukki ñaar fukki ndaw ak ñett ci noonee nag ñaar fukki yëpp wala bokk ñaar fukki ak benn yëpp ñu ngay doxal foofee ci seen championnat pour un championnat bu développé la 10 jours ña ngi ca foofee ca Mambaly di Sundown dixième journée bu Ligue 1 bi jàpp leen bu baax kon doon nañ ko tàmbali sa samedi ci noonee Linguère moo fekk di jàmbaar daan ko ñaari bal ci benn foofee ca Iba Mar Diop Jaraaf ak Mbour Témbo ñaari bal ci ñaar Dakar Sacré-Cœur ak Guédiawaye quitté sur le d'un but partout. Ronaldo gi nag yi ba mu dugalee but seen joon bi ñu amal contre Al Taawoun ci noonee voilà nag léegi moo dàq dugal ci atum 2023 bi avec 54 réalisations ki nekk ci ñaareel togg bi moom mooy Kane ak Mbappé même ndaw mu bi 52 ki ngeen mooy Erling Haaland am na 50 buts. Cristiano Ronaldo ginnaaw gi ndam boobee mu ne dina def lu mën bu ko defee kat atum 2024 mu doonaat ki dàq dugal bi nag pour moom voilà loolee yittalu ko naam lu am solo la waaye nag équipe bi di gagné moo ëppal solo. ñu bëri ñu ngi ñu bëri ñi ngi seetaan li ngeen mooy championnat saoudien bi kon li muy wax jour yi ñu ngi doxal en Europe voilà bu fekkee nag ba ngeen ñëw fii nag voilà ñëw leen ndax championnat mucc ay loolu samay kàddu kenn tibb Ballon d'Or moo waxee lu ni mel ka nga xam ne mooy coach sam di Luis Castro mu ne Cristiano Ronaldo wane na kat vraiment moom mooy joueur bi gën a xarañ ci monde bi ek Lionel Messi 36 ans remporté na Ballon d'Or Cristiano Ronaldo à 38 ans remporté na meilleur buteur de IFFHS pour ainsi dire que Varane ñaar ñooñeekat ñi ngi continuer di wane ne ñoo fi teg tànk. et que ci jiwante boobu yaa fay marqué xam ngeen ne Nacho bi doxal na ba ci ñaareelu mi-temps bi laata Luis Castro di ko togloo waaye nag bañ dugalee jàppaleen ba moom sax voilà doon na doon na ñaawal suba te altawun yi nga xam ne dañ doon yuuxoo kat turu Lionel Messi rien que pour euh, mën a ñaawal la le quintuple Ballon d'Or. dañuy desandi foofee ci Arabie Saoudite xam ngeen ne Karim Benzema vraiment na ay critiques yu métti yu baw yenn ci ay supporters ñoom jàpp nañ ko e jege ñi ngi fësal club bi moo ko jox ndigal ndax dafa amee gaañu gaañu ci tànk ba ñu bàyyi Benzema addu ci kenn mooy Jadon Sancho source lu ñu fësal kay du xibaar yi mooy que li nga xam mooy valeur marchande ci jënd ak jaay voilà wàññeeku na lu bëri. ba muy doxal foofee ci Borussia Dortmund ñu ko doon xayma ci cent millions d'euros actuellement 32 millions dong de lañ koy xayma kon moom wàcc na benn chiffre vraiment bu 118 millions d'euros. Chelsea daan 3 buts à 2 ki nga xam ne voilà mooy Nicolas Jackson jàpp leen ba moo amal passe décisive ci biir anglais benn mooy Cole Palmer bara ci benn action bu mucc ayib ek ñu desandi foofee ndax Nicolas Jackson ki mooy Pochettino da koy comme ailier ek ci fànn boobee ma fay wane boppam ñu bëri jàpp nañ ba am doxal Casa Sport parce que bu ni mel daal la laan wane kon ki nga xam mooy Aliou vraiment s'il y a des possibilités kan bi aussi mu teg foofee loolu aussi solution la ndax kat seetlu nañ bi nga ko tegee ci point bi fetal lu ci bëri du wone boppam ndax benn sol bi dafa bëgg wàllum espace di jëmbal yi ci kanam ndax vraiment un jour tere technique ki nga mooy Pochettino mi ngi indi jàppale ci moom mu ne nag. faaw ñu jox ko plus de temps bu ko defee kat muy doxal ci terrain bi voilà faaw ñu góom ko xam ne ne kat voilà benn jour bu xarañ la moom ma ngay yeggali mu ne nag voilà lu mucc ayib la nag supporter yi bu fekkee dafay raté waaye benn yoon kat ñu ngi koy jàppale vraiment loolee lu mu bëgg lu mu apprécier la kon fans kat ñi ngi indi jàppale ci ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson et que Hugo Lloris moom quitté na définitivement Tottenham et que utali na foofee ca Los Angeles ginnaaw gi ba fa jiwante lu mat fukki ak juróom fukki ak benn ci club bu club bu Pape Matar boobee Barça liñ fësal mooy que nañ fay benn somme bu 45 millions d'euros a jënd kenn mooy Mason Greenwood waaye joueur britannique boobee jàpp leen bu baax nee nañ bu fa dem doxalee nag mooy récupérer numéro 10 bi Jason moo fësal xibaar boobee Thiago Alcantara aussi xam ngeen ne dina doon benn agent libre. ci au au mois de juin ci atum 2024 ci ci noonee Barça ñi ngi taaxilu comme ni nga defee a Gundogan voilà nag bu fekkee nag voilà contrat bi avec Liverpool xaatimul ñu mën ko dalal ndax quoi Lloris blessure sonal na ko de waaye jour bu xarañ la wane na ko ci atum ba muy gàddu li de champion bi. Iker Gundogan bi nga xam ne dafa amee gaañu gaañu nag salle de musculation ba mu doon amal ay tàggatoom waaye ci bopp bi la comme ni ngeen gisee nii ci image bi plus de peur que de mal pour joueur allemand bi nga xam ne vraiment jàpp nañ ne kat loolee garaaw ndax dem na hôpital bañ faj ko kon dina disponible kat voilà war a jiwante 4 janvier li ngeen mooy euh, reprise bu Liga yi sport bi kon moom ngeen moom mooy joueur milieu terrain bu 38 33 ans bi jàpp leen bu baax kat vraiment jot naa jot naa jigante 24 match et que 21 yeb dañ ka titulariser Eric Bailly xam nga ne dañu dakkaloon contrat fofé ci Besiktas ci noné utali na foofee ca Villarreal xaatim fa benn contrat bu 2025 Inter Milan moom xaatimal na contrat kat ki nga xam ne moom mooy Mkhitaryan contrat da fay dem bu 2026. Indri xam nga ne utali na ci Real de Madrid way matalagul li nga xam ay 18 ans ci noné mënugul doxal avec club bu merengue bi ci noné nak pour may ko temps de jeune ndax toogaay bi mën na yàgg dinañ ko autoriser mo doxal ci li nga xam jeu olympique bi nga xam ne voilà 2024 lay am ak France moom moo koy dalal bu soxandikoo ci jaari yow as ek jàpp leen kat ëllëgu Luka Modric mi ngi gën a leen dem pour joueur croate boobee ndax kat club bu merengue bi bu fekkee bëgg nañ prolonger ko ci mel ni Toni Kroos wala boog Lucas Vazquez waaye contrairement à lui ndax jàpp leen club bi kat bu fekkee contrat jeex na liñ fësal këru xibaar yi mooy que mën na fa jóge ak actuellement sax su su Ancelotti voilà may ko temps de jeu bu mucc ayib. ci technicien italien boobee la ñuy desandi xaatim na contrat buy dem ba 2026 jàppale Carlo Ancelotti ci ay kàddu mu ne dafa prolongé ndax kat Varane raaya yi xam ne jël na ko ci at yi passé nag loolee mooy tax Varane ñu récompensé ko lu ni mel kon moom mi ngi gërëm bu baax baax. club bu Florentino Perez bi et que onze possible bi nga xam ne ñu koy xaar ci atum 2024 en cas de recrutement de Kylian Mbappé comme ni ñu ko fësalee ci camp yi Courtois défense bi Alaba Militao Carvajal Camavinga milieu bi Bellingham Chouameni Valverde ca kaw Vinicius Mbappé Rodrigo équipe boobeekat Vera nak dina laké ndak la bagage et que ki nga Sofiane jouer avec les Lions de la Teranga de même que wa France way moom dafa jël jouer le pays de sa mère du Maroc mu ne tànneef boobee nag moom moo ko xalaat voilà nag defal ko boppam woo ki nga mooy regada gi wax ko lu lu mel ci noonee kat coach marocain hésité wul benn yoon wóolu ko waaye jàpp leen bu baax moom du doxal ci li nga mooy kan bi naam dafa amee gaañu gaañu waaye waroon na wér ci diggante bi comme ni ko Sénégal defee al tactico mooy ko wóolu na yenn ñoo may gaañu gaañu kon moom for fi wul woon waaye kat dafa regret gi moom dafa def tànneef kat voilà bañ ko wóolu et que Sénégal bi nga xam ne Vedal dina participé ci le mooy 34e édition bi pour dem défendre son titre une première jàppale nag ñi ngi fësal xibaar yi kat doublé nañ li nga xam kat mooy wàllum prime bu ko defee kat ñu gën leen ñaax ñu dem foofee wane seen bopp prime de participation jugee na ci 4 à 8 millions de francs CFA et que nak euh, ci ku nek dina jot 8 millions et que au total 216 millions de francs CFA ci 27 jours pour ak walum SAFI pour rappel et que dina mobiliser 350 supporters et que nous ba pris 100 ñi nga dem individuellement pour insister au Sénégal vraiment ñi ngi leen xaar ñu mettre l'ambiance ci tribune yu fofé ci Quand sucro kon gay xibaari fofé lay bourré di leen jajeufal ba benen le sur sport 221